monsieur le directeur monsieur le maire tey dama kontaan dama am mbegte ndax ñi nga lim fii tey muy Ndiaye Mar bi ma bëggee andi parti bi saaw moom laa gisoon ak Fatou Mar ak Mor Mar kon bu yàlla dogalee tey ci seen ay courant bi dugg ci dëkk bi am naa mbegte maa ngi fàttaliku guddi gi ñu doon installé cellule APR fii ay minuit une heure ñu jóge fi dem ba Ndiaye keroog bi ñibbee président Macky Sall dañuy bu leen di guddeete ci àll bi ndax wóorul mais booba gisuñu dara lu dul jox ko réew mi kon tey am ngeen ndam monsieur Magor Kane monsieur le président Alelo président Macky Sall du juum. te ku am ngor la ku am dignité te ku fonk wëllëre la li commencé kam ba Lompul gisuma ku àndul ku àndoon ak moom te dénku la ndomba tànk boo demee Sangalkam Umar Gueye nga fa di ministre nga ñëw Kër Moussa maire ba mu nga nekk au conseil des collectivités locales nga ñëw Kayar maire ba nekk na député nga ñëw Jandeer Ibrahima Ndoye nekk na ministre nga ñëw Noto. Maguette Ndiaye nekk conseil économique social et environnemental nga ñëw Darou Khoudoss Magor Kane nekk au conseil des collectivités territoriales nga ñëw Taïba Ndiaye nga ñëw Taïba Ndiaye président Alelo nekk septième vice président nga dem Mboro noonu ba kenn ngay dugg Lompul loolu nag moo ñu permettre tey jii seen gox bi soqaliku ci diggante bu néew parce que kum ci man di doon ci ñi ma lim sa soxla. mooy nga wax président Macky Sall li dox bi dund kon donc ñu ngi leen di sant waaye ñu ngi delloo njukkal le président Macky Sall ndax daanañ politique de waaye ndomba tànk daaw fi dugg wala bu daan dugg tamit Tivaouane lay yem monsieur le directeur de l'ASER xam naa la ñëw naa sa bureau yaag say collaborateur nii nga accéléré processus su courant bi confiance bi président porte ci sa personne firndeel na ko kon donc ñu ngi lay sant courant nag mooy base du développement xañ na li imaam wax mu ñu cee teg dara nee na du politique waaye li muy wax moom la politiciens yi waroon a wax te wax na ko ndax politique du dara dul askan bi nekk ci jafe-jafe nga dox ba jafe-jafe sangé changé leneen lu ñu la mën a wax bu dul loolu du politique te gis nañ ni wax dëgg yàlla plan Sénégal émergent boo ko doon tënk ci wolof mooy pexe. mais suqali ëllëgu sénégalais yi loolu mooy plan Sénégal émergent moom lañ tënk ci France président Macky Sall nag jël ko ni dama koy def deux mille deux mille douze ba deux mille trente cinq kon kooku sóorul boppam ndax xam na ni deux mille du ko fekk mais bëgg na bu fi wàccee plan boobu ku ñëw ci ngay jaar pour suqali réew mi te li ngeen wax tey ci mbay mi. gis ngeen ko de yéen a ko waxandoo saaku pomme de terre semence yaa ngi ko daan jëndee trente mille wala vingt huit mille léegi yaa ngi koy jëndee huit mille franc sooy jaay tamit gis nga ko kon donc vraiment loolu la ñuy doyee président de la république am na nag fu mu toll faloon ngeen ko ak juróom-ñaari at mandaam jeex na daa bëggaat yaakaar naa ni wërta jafe ci zone des ñaay léegi nag campagne bi commencé ku nekk di wax la sëriñ Mansour doon wax nag laay tëje nee na ku topp mbott yi yiy daw ci nawet di nga tàcc ba say loxo booy ba say loxo metti te ba wuttu sa baxaw dina booy Macky Sall moo leen jàppale moo leen liggéeyal moo leen jox courant moo bëgg ak fanaan leen maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam.